salaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV ginnaaw ba ma leen nuyoo di am contentement ak mbégte jano ak yéen chaque jour ngeen leen indil li gën a fas si bopp xibaar yi xam naa nag namoon naa leen yéen a leer na ma internet yéen ñuy commenter toujours ku ci mel ni Modou Fall maa koy béggee bu baax a baax Assane Wala su ma fayee rek ñu daal di leen jukki li gën a fas si bopp xibaar yi. ñoo bàkkee maa ngi lay fay amaan mbégte jàkkaarloog euh, internet Leewtoo TV comme ni nga ko waxee gën leen gis mais ñu ngi woon ci seen bànneex indil leen dem fi tegu fa benn gala lépp pour topp seen bànneex mu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax. ma ngi noonu nag euh, revue bi Iwil Jador moo leen koy may chaque jour fii ci Leewtoo TV mardi 30 mars 2021 journal suñu làmb xët ba mu xëyee ci xëtam mu njëkk Baboy sur son comeback je suis apte physiquement lam ca xam ne nag mooy duutul baaraam kenn ku ñëw rek mu daal di tooyal xaftaanam Assane. dëgg la Mbaye Babacar ginnaaw bi ñu yokkee atu retraite yi ba booy war na mën a ñëwaat léegi nag zona suñu làmb dem na Kaolack lan demoon fekk ko fa ci benn match bu doon dox ci diggante mbuur Petite Côte ak NGB. Mm-hmm. ñu mbay Diouf jar nekk président MPC e muy Mbour Petite Côte invité ko woon léegi nag waa zona suñu làmb jël occasion bi interviewé ko ci euh, retouram léegi babooy sur son combat euh, la ko journal suñu làmb euh, titré nee na je suis apte physiquement nee na moom apte na pour revenir te moom nekkul amul fixation ci kenn jëlul benn mbër naan kii laa war a dajek wala kii ku dikk rek baax na comme ama neex bi ko doon tëkku kon mën na ne Baboy pare na pour jëflante moom wax na également ci préparation nee na moom préparé wul benn adversaire depuis ba mu bàyyee 2016 ba léegi mi ngi préparé wu te du am benn problème mu repère buy ñëwaat ci làmb bi ma nga noonu euh, Baboy moo ko xamle Moustapha Thiam animateur de lutte la mu xamle ci journal mooy Eumeu Sène il est favori ci combat bi nga xam te ne nii mooy dox ci diggante mag Lac de Guiers Mbaye Assane. dëgg la mbay dëgg la Ndeye Mbacke Moustapha Thiam benn animateur de lutte la léegi journal suñu jàmbur rek la ñëw euh, di wax li mu fa wax nee na Eumeu a un ascendant psychologique sur Lac 2 nee na daal psychologiquement Eumeu Sène moom moo nekk ci kaw Lac 2 ndax euh, daje nañ ñu niil. daje naat une deuxième fois euh, Eumeu Sène daane ko waaye nag nee na Eumeu war na daane waat euh, Lac de Guiers Lac pour réconcilier ak ay fansam ndax dernier combat bi Modou Lo daf ko kaawoon te loolu ba léegi métti na supporter am yi nee na également pour Lac 2 Lac moom nee na doit relever un double défi nee na war na benn relever ñaari défi yoo xam ne nii mooy Eumeu Sène daane woon na ko war na fay waaye également war na changer doxin ba amateur yi Euh, image bi am ci moom dañ ma nga noonu nag fa Moustapha Thiam di plaider ki nga xamante ni mooy Eumeu Sène waa Petite Côte nag kañ ñuy jox favori mooy Lac de Guiers 2 Assane dëgg la euh, Ndeye Mbacké la Petite Côte foofu la journal suñu làmb def dafa benn micro trottoir foofa ca Mbour ñoom nag yi ëpp ci ñoom wala ñoom ñëpp ñu jox kàddu ñoom Lac de lañ jaaxaar ne moom mooy moom mooy daane jox na kàddu mbay Mbaye Dieng mbay Dieng li mu benn ancien lutteur lu wax moo ne Lac de Guiers 2 moom mooy favori ci combat ci combat bi am na également Mori kii moom frère Toubabou Dior la woon lu wax nee na Eumeu doit se méfier moom nee na Eumeu war na moytu bu baax a baax a baax Lac 2 am na également Fallou Mbaye kii moom benn chauffeur bus la lu mu wax moom mooy Lac 2 dina surprendre Eumeu Sène dina nee na nar na ko surprendre te loolu nar na bett ñëpp am na également Moussa Faye kii benn ancien joueur la lu mu wax nee na Lac 2 par favori dernier bi moom mooy Youssouf Ndiaye agent de sécurité la moom nee na ëmma moom ci régression la nekk nee na daal ëmma li mënoon bu njëkk léegi mënatu mënatu ko daa jëm mag baadu <laughs> ma nga noonu nag Balla Gaye 2 l'ex-roi des arènes lam xam ne ci journal mooy il contredit le ministre Malick Sall lam ci xale moom on n'a jamais demandé à rencontrer le président Macky Sall Assane dëgg la Ndeye Mbacke ginnaaw bi Malick Sall ministre de la justice euh, yëkkatee woon ay kàddu ci France 24 taxal mbër yi après dafa recevoir ci benn audience lutteurs yi nga xam mooy Gris Bordeaux Eumeu seen Lac de Guiers 2 ñooñu demoon dem euh, non Eumeu Sène Gris Bordeaux ak euh, Modou Lo ñoo ñoo ko seeti woon ba mu génnee nag euh, mooy ministre ba mu génnee ci ci dem benn benn benn manifestation ci ci Matam ne mbër yi dañ ko dañ bi ñu dajee dañ ko wax dañ ko sàkku pour ñu am benn audience ak Macky Sall wax na fa yeneen waaye wax jooju tey la Balla Gaye dikk euh, dindi sànni ci xaj ndax Balla Gaye journal euh, suñu la nee na Balla Gaye de contre contredit le ministre Malick Sall Balla nee na ñoom mosuñu demander euh, di am audience ak Macky ndax ñoom ban commencé am ay milliards wala ay millions uh-huh. boobu xamagun Macky ma nga noonu nag Adrien Senghor première journée dimanche Ngor Ndep impose talent Assane dëgg la première journée Adrien arène Adrien Senghor dimanche bi passé la doon am ñi ko doon tëgg nag moom mooy association des euh, ad euh, association ad euh, waa Adrien Senghor Ngor Semou Diouf jiite ko léegi nag seen première journée bi amaan nañ ko dimanche bi passé waaye ki fa feeñ moom mooy Ngor Ndep fay moom moo imposé son talent à El Hadji Sow ñoom ñoo daje final Ngor Ndep fay daane ko ñu ngi tegoon foofu nag 1 million trente et un lutteurs ñoo ko participé Ngor Ndep Faye mi nga xam ne moo jël tournoi bi am na cinq cent mil ki mu daane di El Hadji Thiaw Sow am na trois cent cinquante mille ma nga noonu nag ba Adrien Senghor tëggee fam langool di terrain gaal gi Jax mu fa doon tëgg le 28 bi passé Zambala jël na raw gàddu ko Assane dëgg la euh, Jax gala de lutte Jax dimanche 28 mars à gaal gi Zambala au pinacle noonu la ko journal suñu lamb waxee nee ne Zambala moom moo nekk jël raw gàddu ko foofu ci gale gala bi amoon ci terrain gaal gi te Jax tëggoon ko ndax sambalaa moo fa daan Ibou Ndiaye Obali final foofu nag ñu ngi fa tegoon 3 millions 3 millions yi euh, luur yi ñu ngi nekkoon ci vingt 24 lutteurs euh, Ibou Ndiaye mi nga xam ne ni moom moo daane franc également ci tournoi boobu Zambala. moom daane euh, fils de Batlensky loolu demi-finale la ñi nga xam ne ni ñoom ñoo dem demi-finale muy Franc ak euh, fils de Batlensky ku nekk am na cent mille euh, léger yi nag quarante et un lutteurs ñoom ñoo ci participé Abdou Ndiaye moom moo fa daane Bas bu Ndong Bas Ndong un million la leen tegaloon cinq cent mille la am kin daane finale di Bas Ndong am trois cent cinquante mille demi-finaliste yi am douze mille cinq cent mooy quart de finaliste yi plus du tout am 12500. ma nga noonu nag première journée l'autoproduction à Joal kii di Doudou Sané El Hadj Ndiaye triomphe Assane. dëgg la Joal euh, l'autoproduction ak Pape Thialy Seye ko ñu demoon fa euh, samedi ak dimanche foofu nag Doudou Sané moom moo jël raw gàddu gi moom moo fa daane. El moom moo fa daane. bandi 40 bandi 40 exactement moom la fa daane final. Euh, final léger yi El Hadj Ndiaye moom moo fa daane Cheikh Euh, Doudou Sané bi nga xam ne ne moom moo jël tournoi euh, kii luur yi moom am na 500000. Euh, bandi 40 ans am na 300000 demi-finaliste quart de finaliste yi demi-finaliste yi am na 50000. léger yi 59 lutteurs ñoom ñoo fa participé woon El Hadji Sidi Ndiaye mi nga xam ne moom moo daane Cheikh Sarr final am na 250000. Cheikh Sarr am na cent cinquante mille quart de finaliste yi am na vingt cinq mille ñu fàttali ne ay mbër ñëwoon nañ fa ki mel ni Gaskel Diame première fois muy génn Sele Mele mi ngi fa woon mhm. ak Ibou Senghor di ngaan ngaan ngaan Senghor ngaan ngaan eh, ak di Ibou Senghor deux ñoom ñëpp woon nañ fa mu nekkoon journée bu riche boo xam ne ni waa Joal yëpp génnoon nañ seetaan bu neex a neex booy ñaa ak nga xam te ne nii mooy Tapha Tine tàngal ko ba mu tàng jër Joal neexoon trop macha mu ngi noonu Leewtoo avec lañ jëm rubrique bi nga xam ne daa bokk ci journal suñu làmb Alioune Badara Diouf promoteur de lutte la mu xam ne ci journal mooy le combat Gris Eumeu Sène de 2011 m'a le plus marqué. dëgg la euh, Ndeye Mbacke Alioune Badara Diouf promoteur de lutte la moom moo tëgg waaye moom moom également Vox Arena. moom moo tëgg combat bi war a dox ci Franc ak Tyson 2 ak Mama Lamine Garga Tyson 2 oui Mama Lamine Garga 2. moom moo tëgg borom G5. voilà moom moo g moom moo tëgg euh, journée boobu journée boobu mi ngi am le 31 am na su ma juumul. léegi nag moom ne euh, rubrique Leewtoo la ko journal journal suñu làmb dalal li mu wax moo ne. le combat Eumeu Sène Gris bu 2011 nee na moom moo fi gën a marqué ci euh, carrière làmb mi ba muy dalee seetaan làmb ba léegi waaye nee na moom li mu mën a togg. moom mooy omelette bu fi Babacar nekkoon dina dina ko wax dara léegi nee na nag objet indispensable boo xam benn objet boo xam mënul dem bàyyi ko moom mooy li na tam ndax gis gisam euh, demeewul noonu trop. ay bëtam. ay bëtam demeewul noonu ay tànkam maanaam lu bàyyi ginnaaw kii ay bëtam mu ngi noonu. day dem ci li nga xam ne mooy journal record la lenteur administrative. à la préfecture de Dakar li nga xamante ne mooy fusion entre Likadoun Dakar et Fass la casse-tête des certificats de décès Assane. dëgg la euh, Ndeye Mbacke Fass ak Ndakaaru dañu war a def benn fusion waaye li xaw a yéexal affaire yi moom mooy benn euh, certificat de décès certificat de décès de Omar Tall Omar Tall mi nga xam ne moom mosoon na fi nekk président Fass moom daal certificat boobu lu moo réer moo tax ba léegi fusion bi administrativement parlant. mënuñu ko euh, acté mënuñu ko acté mënuñu ko finaliser waaye journal Record wax na également que ne le reste yooyu yëpp euh, définir nañ ko ndax Abbas moom mooy président bi Kati Diop moom mooy coach bi Tafa Gueye moom mooy adjoint adjoint euh, Kati Diop noonu lañ ko doxalee léegi daal certificat des dese boobu daal moo moo des essence yi ba fusion boobu mënugul officiel. mu nga noonu journal Record moo ko xamle ba léegi. Euh, ki nga xamante ni mooy franc somme à payer un million de francs à Parcelles Mbooloo ginnaaw ba mu bëggee jóge fi nga xamante ni mooy Parcelles Mbooloo dem fi nga xamante ni mooy jàmbaaru wrestling académique bu Papa Sow Assane. dëgg la mais kii euh, Ndeye Mbacke loolu benn disposition bu CNG wala bu euh, ARES ARES bëgg ñu teg moom mooy ku bëgg a quitter benn écurie dem ci beneen nga fay un million loolu nag dañu bëgg décourager mbër yi. écurie bu nekk ñu toog fa. a tax journal record ne ralliement à l'écurie jàmbaar wrestling académique. franc sommet de payer un million à parcelle mbooloo pour daal mu mën a jógee parcelle mbooloo dem ñu jàmbaar ko def leen ci ñu ngi koy wax mu joxe un million pour mu mën a def loolu. loolu dina métti di. dana métti mais benn la pour ñu permettre mbër yi ñuy toog ci fi nekk fi nga nekk écurie bi boo fa nekkee di entraîner comme ni nga lim fa li nga bëgg feneen di ko am foofu. di nga fa am ma la jaajëfal looy tàggatoo di wax mun mu ndem ba ba léegi Mbaye Babacar nekk fi tey mi ngi mi ngi ndàngaan ndàngaan sàmb looloo tax nekk fi tey ñu leen remercier bu baax a baax a baax di leen jox dig daje suba ak jàmm incha allah ma nga noonu nag leen jaajëfal bu baax di kontaan ci yéen bu baax maa la koy santal Yacine Fall la Yacine faal sama caméra wul man boobu maa ngi lay gërëm bu baax Fama Ousmane Diallo sama montar bi euh, Kébé Aïda Matu Faama yaa ndee la borom ndékki yu neexi maa ngi lay gërëm bu baax a baax a baax du nuyu borom kër gi ah xam naa ne journée 27 ak 28 métti woon na trop mais il a géré macha allah di ko ci ñaanal jàmm ju bëree bëri dañ jox dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV.